waaw mais fay naa la maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di bëggee ñëpp waaw dagg neexul. maanaam le premier nag sa mhm. du ma si bëgg di wax kooku suñu papa la kooku suñu monument la laay wax. Mhm. yàlla na ko yàlla defal jàmm mhm. ñu ngi koy nuyu. ndax nag son bi mujjee génn sax moom laa sargal. ñu koy ñaanal yàlla nag mu si daan defee moom lu mu def da siy am jàmm lu mu daf da si am ndam ndax kooku moo njëkk wane suñu musique mooy wane suñu musique suñu titre la. di ko nuyu bu baax a baax di ko siyaar lii rek laa mën a wax ci moom yàlla na ko yàlla defal gudd fan ak wér gu yaram ak sama papa tamit béjee fay sama idole aussi mhm. yàlla na leen yàlla defal jàmm loolu moom du ma si prononcé man cuuj laa xale bu ndaw laa loolu ma si wax ñu suñuy kilifa lañ koy def grand théâtre waaw incha allah incha allah loolu grand am di jàmm incha allah ngi koy waajal te incha allah dina neex dina yëngu mhm. artiste de l'année mm. nan nga dundee loolu. waaw kontaan kontaan rek parce que boo nekkee ci dara ñi fësal sa liggéey ni yaa ngi liggéey muy nice même bu ma ko jëlul woon sax tey ji loolu boo si bokkee ñu nominé la rek maanaam ñu ci nominé ñëpp tamit ay jàmbaar lañ daal parce que musique bi dafa métti xam nga léegi boo si bokkee nag ba ñu dem ba tànn ne jël nga lii kon loolu dañ ciy sant suñu borom bu baax a baax a baax te yàlla na yàlla xeeb doole waaw ñu amul tamit yàlla na leen yàlla may déwén mm-hmm. waaw. Ah, tey lu waraloon sa teewaay fii. waaw sama teewaay li ko waral mooy Clara nag daa woote tey woote tamit def ko sam centre ma ci ñu woo ma ci ah ñun tamit ñu ñëw def suñu yëf noo la demee rek looloo nekkoon tey sama teewaay nag dëgg neexul waaw. Euh, Bass Thioung ak it lu mu génnee it lay doon lu mu génnee ay millions de vues euh, lan nga gisee loolu sénégalais saa yoo génnee ñu apprécier. waaw loolu day firndeel ni rek Bass ñoom seen Bass la ndax Bass lépp nu mu doon ñoom ñoo ko def sénégalais yi sama aw ma seen fay defu ma fi dara melu ma fi nee na lépp lu ma mel rek dama naan sénégalais la ak tamit sama waajur sama yaay maa ngi koy ñaanal fi mu tëdd gëloo ko fi mu jugee. parce que ñaanu waajur nee nañ day topp doom man xam naa si dara ku am sa waajur fonk ko ku am sa yaay surtout fonk ko bu baax ndax nag ñaanu waajur mooy gàllaaj bu dul toj waaw man nag loolu la kay sama secret su ma amee lu ma neex sama yaay laa koy wax ba tey jii ma nekkul si kaw àdduna mi ngi si kaw mi ngi si biir suuf su may ñaan damay dem ba tim baameelam ñaan ko parce que yaay daa for waaw ba tey nag maa ngi koy gën a ñaanal fi mu nekk gënal ko fi mu jugee alors ma bëggoon la laaj aussi rappeurs yi ah, bas ñu bëri ah, di wax naan mooy yàq rap bi di critiquer ay yenn rappeurs yi naan du tax ngeen invité tout le temps Bass si seeni i la lan nga gisee critiques yooyu ñuy teg naan Bass Thioung warul ànd ak rappeurs yi. man lu ma defarul du ma ko yàq rappeurs dama ñëw fekk ñu àndal mbalax maa ne boobu xamuma sax dinaa dugg ci aar ku ne fekkee ne Wally Seck Fata Mbaye Dieye Faye li mu naaj loolu man lu ma yàqul man lu ma defarul du ma ko yàq lu ma dugg day gën a neex bu neexoon mu dugg si mu gën a neex. waaw parce que nag Bassirou daa ñëw indi style boppam amaana yenn gars yi dem gis def neex na wala li muy def dox na wala style bees la tamit ñu koy def mais tamit ku nekk ak li a sentir rappeur bi daf yi mu sentir tamit rappeur yi ku si am nga sa idée ku si nekk tamit am nga loo sentir rappeur yëpp ay ndaaraan lañ man tamit ku si am sa yëf ba ma ko sentiree woo ma dama siy dem dafa mu nice ba ma ko yëgee su ma amee sama yëf tam sentir benn rappeur tamit dama ko si woo dafa mu nice loolu kese la musique amul frontière ah lu may def tey la gën neex hmm. amul man yëguma critique de kan moo critique man yëguma lu ma ko vocal kon. <laughs> waaw est-ce que mën nañu xaar spectacle ci la première bi au Grand Théâtre mhm. est-ce que Bass Thioung dina waajal du lourd ak ay fansam. loolu daa am lu ñu war a wane incha allah te dañ koy wane si kàttan suñu waram ndax nag déggoo ma ne making ambiance ku ko bañ rek woo ambulance sama son la ñuy danse <laughs> lu ma génne mu doon tendance <laughs> yàlla def na loolu kon nag man ak biir grand théâtre incha allah dinañ gis ambiance dina neex dina yëngu. Hmm. te dina fees dell incha allah waaw. d'accord euh, suba teel nga nekk ci euh, label bu mag la boo xam ne yéen ñëpp a comme on dit artistes yëpp benn lañ temps yi ñuy dégg ay Sidi Diop ay euh, Wally Seck yow duñ la mës a dégg nga prononcé pour pourquoi. waaw parce que man dama nekk xale nekk sama yoon mais am sama style de musique su ma neexee ne unique à mon genre jotaw ma kenn dara aw ma tamit kenn ak affaire pour lenn samay mag dama lañ jox cëru mag samay papa ma jox nañ cëru papa. maguma fi kenn sax laa wax su ma fi magee kenn sax xanaa kenn lay doon yoon tam ma jox leen cëru rax samay maamaati maam ak ñëpp parce que adduna bii nii xool asamaan jarul buuxante te ñun ñëpp sénégalais lañ lépp Sénégal la damay ñaan yàlla tey jii nii man lépp lu dëng sax man mii taxaw war naa mën a jubante mu rafet waaw man loolu mooy sama taxawaay ndax man nag yàq yaay Baba Diagne mooy sama maam Bassirou Diagne lu rafet la fi wax lu rafet la fi def yàlla ne Bass Thioung nag day nekk artiste doomu lébu laa ci ndey doomu lébu laa ci baay yàlla moo yor nit nit yorul boppam fii nit ku lépp loo mel suñu borom la yàlla moo ne carrément kii ci aar lañ koy xamee ma def ko nag nekk seeg fulaak fayda kon aar bi ma dugg nii fulaak fayda laa ciy nekkee te lu baax laa ci wax lu baax laa ciy def ba keroog may nekk ci leneen voilà. su ma dégg mën nga beneen style lu dul euh, ambiance bi bu ñu naan ba suung day ambiance lay def mbalax bu tar bi lay def est-ce que mën nga beneen style bu dul boobu. mais est-ce que ñiy way nañ ba style bi may man laaj laalaat na la loolu est que man ñiy way ñoom li may def man ñoom mën nañ ko man tamit ku si xam nga àdduna am na ñoo xamante ni dañuy def dara mu nice gars yi ne leen non non da nga war a jëwaat fii léegi lii àdduna lépp mun na ne mais lépp dafa laaj liggéey man duma ma defantu su may def rek damay def li ma def ba ñëpp bëgg ma non su ma ko yokkul du ma ko wàññi li may def maa ngi koy def ñeneen ñi li ñuy def ñu ngi koy def am na li may def ñu ko bëgg mën mënuñu ko am na ñeneen li ñuy def loo xamante ne man aussi du sama style mm-hmm. yaay noonu la demee rek lan la ñu mën a xaar ci Bastion ci mois de décembre yi nekk parce que buñ ne mois de décembre xam ne mois wu artiste la mois wu nandaan yi la mm-hmm. bëri na ci ndaanaan yoo xam ne ci mois bi la ñuy pré euh, la ñuy profité daal di jox rendez-vous seen i fans avant le premier janvier looy waajal waaw war naa génne war naa génne clip samedi bii nii nii nii nii nii waaw incha allah Euh, sama changement Fouta Saabi ba ma naan yoroo say millions di ma gondi ay ree la may def mhm. yorol milliards di ñu gondi ay ree la ñuy def toj na TikTok juróom sax dañuy sant suñu borom noonu la demee mais thème que inspiration bi que xam nga des fois ndeysaan ñeneen ñi dañu topp ambiance ba duñu déglu parole yi nag mais ku tog di déglu hmm. concentré wul di déglu parole yi hmm. te suba tamit sama bi leen wax ni boo la ko seedaanee xam ne def nañ si def nañ si scénario bu am solo def nañ si thème aussi parce que son bi doylu la mooy carrément xam nga nit ku nekk gor nga nit lu mu yor yéene ko ko mais yow li nga am doylu si bul xool nit ki lu mu yor ba koy soxoree yow it bul xool kii moo la nga koy géem a soxoree yàlla moo yor di séddale te nag borom kër bu ñuul ñaaxul dara waaw borom kër bu ñuul ñaaxul dara te àdduna loo xaar rek mu fekk si la wërsëg kenn du ko yaa si nga koy xaar di ko ba mu yegsi ndax bu yegsee rek nga xam ne suñu borom ñëw na waaw ñu lay jaajëfal bu baax dégg naa leen di ñaanal ñëpp xelu baax it yéen la yàlla leen yàlla defal jàmm le premier janvier maa ngi woo ñëpp incha allah di ñaanal ñëpp jàmm di ko commencé suñu papa Youssou Ndour yàlla na ko yàlla defal tawféex Pape Diouf Waly Seck mm-hmm. artistes yi yëpp ndax ñooñu suñuy mag mm-hmm. yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm bàyyiwuma sama waa label Sidi mm-hmm. Naajo El Hadj Keita bàyyiwuma kenn Sori Ba Tarba Mbaye gars yëpp Sidi Ka waaw waa The Best Family gars yi bàyyiwuma kenn parce que xam nga ñun ñëpp benn si bopp la nañu jéem a jël suñu musique bii ni ñu am jëm ko génnee baa ñu jëm ko jël di tënk fii musique yaatu na de nag yéen siy lekk ne kaana yéen siy lekk lu ne waaw mais mais Aïda na décortiquer sañse bi waaw mais <laughs> sañse décembre dafa tàmm sañ nga xam nga nag xam nga nag xam nga nag c'est Bass Thioung li ma naan unique à mon genre. sama style de musique lii sañ see tamit waaw dañ koy teg si yoon.